Euh, motif bi nga xamni ni itam euh, joxe nañ ko moy jamono ji da nga tecc ci kasso bi mo wara nak mënta li nga xamne euh, ko que communiquer di wane ko nak démb sénéra moko ko jël exactement à son article un mu le temps d'antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Faye n'est pas diffusé manam teguñu ko RTS di préciser que ni mi ngi dépôt si décision bi nga xamni ni itam dab na jógee fa nga xam ni it Sénégal que ni nee ko bul tek ki n'a xam ne que euh, passage yu Bassirou fay Faye bi nga xam ni itam bi euh grâce mo assuré won ak Amadou Ba son mandataire Article 3 bi mu la présence euh, la présente décision sera enregistrée et notifiée au, au mandataire du euh, candidat et publiée partout où besoin sera L'une ñu mel nag dañ ko daal di jox ki na xam ne que moo Amadou Ba le mandataire de Bassirou Diomaye fay explique raison yi na xamni tam euh, tax na euh, euh, vidéo bi jàllul alors ñoom dañoo daal di sukkandiku si nga xam ne que moo di considérant qui résulte des dispositions du code électoral que le temps d'antenne est réservé aux candidats en lice à la présence de la République mu daal jàpp li li nga xam que mu temps d'antenne bi kenn mënu ko def ku dul nga xam que moo di candidat bi kenn mënu daal di figurer li nga comme que à sa place juste après liste bi nga euh, le conseil constitutionnel moo ko daal publié waaye itam moo arrêté alors Arfan euh, la RTS donne une décision euh, justement ginnaaw ba ñu daal di félicité woon ni que ni bàyyi nañ sax ki xaas daal di enregistré ak ki nga xam ne que Amadou Ba la RTS démb si démarche bi ñu ñëw def benn fait majeur alors Arfan yaa yaa ko sànq le conseil constitutionnel dafa sukkandiku sur les sur la situation du moment pour daal di war a amal élection yi réduire réduire lépp lo xamni ni itam waroon daal sax waru mën gudd donc est ce que seen xaar tamit waru waru mën prévoir créer ben jurisprudence ka ba Bassirou Diomaye fait parce que si ëllëg kenn meuna nekat kasso euh sa candidature daal di waru meuna jall on sera euh, justement association loi bi japp na ni su ben situation amee loi bi su nekké prévoir ko dañi créer ben jurisprudence pour éviter le vide exactement nak daal di jangaté ce comportement de la RTS. oui oui sauf que yow da nga ne loi da nga ne loi. mais CNRA lu muy def ni ben loi waxuko ko oui benn loi waxuko no Babacar Diagne non waxuko ko. ben texte au Sénégal waxul ni que candidat bi su bopam moy ñu enregistré les images yi amal e RTS c'est des images symboliques et traditionnelles mais ben texte waxul. Hmm. xama ñom meun nañu tok wa CNRA ñom Babacar Diagne et consom meun nañu tok waxtaan sen biir désormais candidat bi la ñuy may faveur moom mu ñëw enregistré boppam. mais yàgg na nañ ko waxtaane mais yàggul loolu benn a teg texte waxu ko. su ko wax benn texte waxu ko sëñ Fallou waxu ko. léegi ñoom ñu ne candidat bi si boppam d' accord supposé que dans le cas ni ñoom dañoo ne candidat bi si boppam muy ñëw enregistré maintenant un candidat qui est en prison lan lañ koy def. Hmm. kon dans ce cas nañu yóbbu seen caméra yi foofu. nañu yóbbu seen micro seen micro yi foofu Cap Manuel ñu enregistré le candidat la. dina flagrant de. wala sëñ Fallou wa ilaa ñaari ñoo mën a am ñaari ñoo mën am. Hmm. comme ñoom dañoo bëgg kout coûte que candidat bi si boppam ñoo toog enregistré ñaari ñoo mën am. Hmm. soit ñoom wa RTS yóbbu seen caméra yi. Hmm. dugg biir Cap Manuel ou bien wa Cap Manuel def une dérogation dox la plénitude au candidat Bassirou Diomaye Faye ñu escorté par le biais de la gendarmerie et les services pénitentiaires. Nous mm. avons ba bu ci RTS bir RTS enregistré paré Deloitte Casson. kaso. Mm. loolu mën nañ ko def. ce mën nañu ko def. parce que il y a des prisonniers qui ont dañ leen takkal ay bracelets électroniques nous ngi liggéey ñu ngi xëy maintenant bu fekkee candidat bu nekk prison ñoom bëgguñu son son représentant Guirassy mu enregistré deux situations se posent ba prêt à diviser. donc ce qui veut dire ce qui veut dire que dafa à diviser oui dafa am benn mais après Sénéra, day euh, c'est c'est déclaration benn texte waxul ni que candidat bi ci boppam mooy ñëw enregistré benn texte waxu ko. Hmm. waxu ko il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent et maintenant le principe d'égalité des chances des candidats fan lañ ko teg ñoom waa CNRA. Hmm. waa CNRA fan la ñuy teg le principe d'égalité des chances des candidats parce que le candidat bu ñuy wax ni. je suis pas en train de le défendre xam nga man mbiru loi laay dox. loi bu waxee man loolu laay wax. Hmm, loi waxul man dama créer jurisprudence dama loi. c'est que ñom dañuy créer toujours ay précédents dangereux dans ce pays def lu même loi bu ko waxulé ñom sen propre choba ñom dañ koy je ne sais pas pourquoi ñu koy def mais ñom ñoo xam lu L'union ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko parce que bu fekkee loi waxul ni candidat bi ci Bopom. en sachant que le candidat là n'est pas en liberté le candidat n'est pas en liberté yow nga ne il faut que candidat bi Maintenant, le candidat bi lan lay candidat bi il nga ne fokk mu ñëw toog fan lay ñëwee ci ku ñu mu ngi ci les liens de la détention bu fekkee léegi moo tax ma ne la deux situations c'est donc moom joxuñu ko choix donc moom choix mais ils n'ont pas ils lui pas donné le choix parce que amu choix ban choix lay am situation bi am choix waxuma ci ban choix lay am nit ku nek ci kasso dafa am choix nit ku nek kasso est-ce que dafa am choix posé naa la question bi nit ah nit meun nga nek kasso ba pare am choix. que maanaam dañu fat buntu yep mais mota tax la bu fekkee ñom dañu bëgg candidat bi ci boppam basir Diomaye Faye ñëw enregistré soit CNRA dem gis les autorités compétentes ñu accepter basir Diomaye Faye d'être escorté di Cap Manuel à la RTS mo enregistré ba pare ñu escorté waat delloo ko ci kasso bi lolu mën na ne mën na ne parce que parfois on assiste à des transferts des prisonniers ci prison bi bu fi ñu euh, escorté ko gis aussi ay bracelet électroniques yoo xam te dañ koy duggal ci ay tank prisonniers ba pare ñu ñu ñibbi seen kër. tay Bassirou gamay fay bu fekkee ñom bëgg nañu mu enregistré mën nañu ko escorté di Cap Manuel te dara du ko laal mu ñew dugg dugg biir RTS enregistré parler de loi ci qui sont comment ça celui, le lolu yakul dara lolu lu nekk la lu la hmm. voilà moo tax là le débat n'est pas là-bas c'est-à-dire que ça ne tient pas tay warul won que t'es débat d'abord un man suma ma wa parti bobu wala wa coalition Diomaye président hmm. suma ma ko jiite woon hmm damay jéggal RTS cent ans d'antenne. enfin am na dëkk yoo xam ne jéggal. am na dëkk yoo xam ne il faut mu jàll la RTS. loolu dama la histoire la loolu tradition la. tradition. sacrifier à la tradition. la tradition. la tradition mais am na dëkk yoo la présence de la RTS. tradition bi tradition jaar RTS. lan la jural nit est-ce que tax na nit falu. candidat yi jaar RTS tey Bassirou Diomaye Faye jaarul est-ce que ñoko pas ëpp sens lan mo leen garantie ni que lu ñu jaaree RTS ñom ñoy fàllu ëllëg voilà le débat c'est là-bas le débat, ce débat c'est pas une tradition la RTS nit mëna ça que on est à la révolution numérique que nga xam ko. mais enfin ce sont ce sont droit c'est que sëñ bi. man les candidats et ce sont droit de parler avec fi ma nekk ci débat bi ak yow fi nga nekk bokkul. ce sont euh, mais enfin ce sont droit. dama ne man fi ma nekk ci débat bi ak yow fi nga nekk bokkul. droit Bassirou Diomaye Faye la ne ko bàyyi mu wax. c'est que c'est que foo nga xam mbir. ok jamono dafa dox. Hmm. adduna dafa dox. adduna bu doxee yow da nga war a dox maasaale ak moom jamono moo dox on est à la révolution numérique. loolu laa lay wax moo tax la man la perception que j'ai eu. xam fi ngay waxee la perception que j'ai eu ak yow. fu nga xamna fi ngay nekk xamna fi ngay waxee Bassirou Diomaye Faye le meeting qu'ils ont eu hier à Parcelles. est-ce que ñi bi par le biais de la RTS lañ ko seetaanee pour xam ni que tere nañu fa mbolo bu takku mais wax ma wax ma rek est-ce que même les médias étrangers ñi xeyé tey di wax ci meeting bobu mais la RTS est là dama né la RTS d'ailleurs jàllalewul jàllalewul meeting bobu en direct pourtant les gens suivaient ce meeting là en direct man suis la nek. man dimension bi nga nekk bi ma ak yo, dimension bi nga nekk RTS donte c'est-à-dire que comment dire enregistrement tradition bo xam yag ko def mais aujourd'hui les partis ou bien les coalitions n'ont pas besoin de la RTS pour voir seen image Voilà pour voir seen campagne ils n'ont pas besoin de la RTS RTS le direct hier du meeting mais pourtant les gens le regardaient en direct. Hmm. Eh oui tu étais chez toi tu regardais le direct le 5 TV Bini était en direct hier. 5 hmm. TV nii chaîne hmm. la première chaîne digitale au Sénégal bu ñuy la chaîne là était en direct le meeting de Goma est président la coalition là noonu la ngeen nekk aussi en direct si d'autres meetings. voilà est-ce que est-ce que euh, les gens aujourd'hui est-ce que les gens Moi-même, may ma ma jeexalee foofu may ma tuuti est-ce que les gens aujourd'hui ils ont besoin d'aller allumer leur télé hmm. te ba pare déjà petit RTS déjà hmm. petit RTS pour quoi? Hmm. meeting diw mu ngi daw mais ils n'ont pas besoin à base de leur téléphone là, là, wax ah. moo tax ma ne à base de leur téléphone nous ngi cette cette meeting Alphane dafa am démb ay. man su ma nekkoon la coalition Bassirou Diomaye Faye damay jéggal RTS du am bruit. alors CNRA RTS nañu jël seen temps d'antenne. alors jéggal naa leen ko ba pare ma ma jël ci. ba les canaux digital s'il vous plaît euh, dafa am nu may woo démb li nga xam ne moo mhm. euh, quelques responsables des partis politiques.